Diouf Sarr Abdoulaye yow la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Ndiaye moo gën ci Dakar waa santé loolu la ñu wax Abdoulaye Diouf Sarr la ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr la ñu ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye ñu bëgg nga nekk ca mairie Dakar Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye ñu bëgg ca Dakar mouvement Abdoulaye Dakar moo ko soxla pare nañu jóg taxaw ànd ak yow lébu borom Dakaru lébu borom Dakaru. tu as mis du temps. Ça deux heures de temps pour aller au marché. J'ai pris trop de temps parce qu'il y avait trop d'embouteillages. J'ai fait 30 minutes entre Parcelles et Padoue. En tout cas, c'est inadmissible ce qui se passe dans ce pays. Il faut vraiment changement. C'est ce que je te disais que nous apporter ce programme de ville, euh, développement, Il nous apportera des cadres de vie améliorés et insalubres. Ainsi, on aura un de nos rêves. depuis euh, nous vivons dans cette posture qui ne nous arrange pas trop. Je pense que quelqu'un qui a su développer sa commune parmi tant d'autres euh, pourra développer notre cher Dakar. Ah, je suis déjà Euh, J'espère que j'aurai mon bon pied boudien debout.